doomu Fissel baa ngi noonu waaye doomu Pikine baa ngi noonu kookoy Boy Maroon mu ngi war a bëreeg doomu Parcelles baa ngi noonu un ba vingt six waa vingt cinq seen seen ngi noonu danaa leen lamb xale koy def waaw ndeysaan drapeau ami collège Thiandoum la muy jigéen ju mën mu yàgg a def si làmb lu ne dem na fu ne ndax làmb na mbër fu ne booy ma doon calimbeer ndeysaan calimbeer moo ñëw moo sol ngemb weex li woddu noonu kookoy calimbeer booy ma doon calimbeer waaw calimbeer moo dëkk parcelle 1 ba 26 moo daan ndigal. Eh? moo daan Boy Balde. Eh? arbitre sifflé na diggante Boy Maroon ak Calimber. ndeysaan Boy Maroon ak Calimber kii di Calimber moo daan Fils de Balla kii di Calimber moo daan ndigal kii di Calimber moo daan Mopol kii di Calimber moo daan Boy Balde kii di Calimber moo daan capitaine bu Caaroy waaye capitaine Kani Sadam moo ko daan waaye kii di Boy Maroon ndeysaan mi ngi noonu loolu kii sama maam daan na beejo la beejo waaw beejo bu weex ubbil mbaar ka jaay udo gi des ku yàqoo nga defaraat ndeysaan booy ma l'expérience face la jeunesse soo xoolee dox na si kaw laaw laaw laaw baa dul la door nga daanu baa dul la door nga daanu baa dul la door nga daanu ay beejo ma tas na serban ngay tas wa arbitre wootaat ko na ba booy ma doon tan la bëgg booy ma booy ma doon jàppante la bëgg waaye calimbal xeex la bëgg eh, booy ma doon a ngi dóor ba du ko dóor bu daanu booy ma doon na ko booy ma daan na calimbal doomu fisal bi daan na ko doomu ndimaak bi daan na ko kooku mooy booy ma doon la vacherie de Fissel waa la face Cetizen dimanche xoolal waa Pikine a ngi noonu waa Seras a ngi noonu kooku mooy Boy Maroon xale baa ngi noonu kii moo nekk écurie Gana Seras mooy huitième combat am sept victoire benn défaite il est le maire waaye xoolal saan Boy Maroon a ngi jooy Boy Maroon ngi jooy Boy Maroon ngi jooy Boy Maroon Boy Maroon bul jooy saan Calimbeer a ngi noonu Calimbeer ngelaw la tey ngelaw gi dafa dafa fàtte indi Calimbeer lam xeex baaxut